maa ngi leen di nuyu di leen sant wàllum santé ak social sooxewul benn yoon ci commune bi di Ngathie Nawde nekk ci département de Guinguinéo bokk ci région de Kaolack. jeunes yi bokk ci Ngathie de jiitu ci monsieur Malick Faye ak madam Ngom dañoo pare ngir pérenniser liggéey bu am solo bi docteur El Hadj Ousseynou doon def fii ci Ngathie Nawde liggéey boobu wax nañu ne pare nañu ngir surtendre bépp liggéey boo xam ne moom la ICP bi di madame Fatouma Ba di def ci poste de santé bi ak yeneen yoo xam ne pare nañ ko def ko dans le de santé sociale ci biir commune de Ngathie Nawde Papa Kapo ñu koy wax euh, docteur Ousseynou Faye je pense que Ngathie yëpp xam nañ ko mais au-delà de Ngathie aussi tund bi yëpp xam nañ ko donc mun naa ne sax Sénégal xam nañ ko ndax euh, nit la woon koo xam ne des actions comme ça il en a fait tellement de ces defa defa defa defa def mais li ñuy wax rek jaam ak euh, pexem yàlla ak dogalam donc yàlla moom na ko comme nekk na ko gënal fi mu jógee donc ñu siy profité aussi di ko ñaanal di wax rek ne avant mi dem nag dafa am loo xam da ko bàttale woon peut-être man li nga xam ne mën naa wax sës ko loolu te doomam laa dañ doon dox ma doon woo téléphone dañuy dañuy dañuy déggante am na loo xam ne mas na ma wax mu ne moom journée yi nga xam ne ko doon faral di def ngaaj wax dëgg yàlla benn benn jàq njàqare rek la si am mooy que ne bëggul mukk wane ginnaaw ngaaj mu nekk loo xam ne après dafay nax saay donc si gàttal je pense que ne aussi mon moo firndeel donc ñun aussi nek ay domam mais au-delà aussi ñu nek ay personnel de santé donc je pense que ne waxuma sax ñun ñi nga xamné ay domam lañ mais amul kenn ko xamné peut-être nek nga ci santé rek nek ngaaj nek doomu ngaj te élage Hadj Ousseynou Faye jëflantewul ak yow ay kóllëre ci walum santé ci walum lénen ak lénen ak lénen donc ba taxna ci kàttanu yalla ak ci katanam mhm. euh loolu lolu amna mom gë gën gëdd na àdduna. donc ñu bugg a continuer li nga xam ne moom lañ ko doon def donc mu mel ni aussi dafa nekk suñu wet li tax may wax loolu mooy que yàlla daf na ubbil bunt yëpp fépp fu ñu dem fu ñu ne ah dañoo bugg a continuer kat journée duñ ñu wax bu leen eggali mel leen ni Ousseynou mu ngi fi lan ngeen soxla ñaata nit ngeen fu ñu dugg rek loolu. hôpital bi ma demee di ko wax euh, directrice dana ma man sa papa boobu noonu moo doon sama gynécologue. directrice hôpital El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack donc lépp lu ngeen soxla wax na donc gis ngeen docteurs yi ñu ngi fii ñoom maintenant docteur Malick Ngom dañuy profité di leen gërëm ñoom ñëpp may ga pédiatrie docteur Ndour docteur Dramé donc mën nañ plus de dix médecins yoo xam ne euh, peut-être tey samedi la mënoon nañoo toog di noppaleku mais ñoom ñëpp dañ dañuy ñëw infirmiers yi ñëw nañ donc may profité aussi di wax ne moom nitu nit ñi la woon loolu moo waral fi nii loolu ñun jël nañ engagement bi waxuma rek ñun en tant ay doomam Euh, c'est la population de Ngadj. di gërëm aussi à travers la population ah ki nga xam ne responsable bi njëkk parce que aussi bu ñu mënutoon a dalal yaakaar naa journée bi du réussir. macha madame l'ICP madame Ba madame Ba aussi ku si là, la ku si jàpp la. donc fii ñu ni affaire yi yomb na trop si ñun parce que mo mo ñuko ko facilité ñëw nañu ubul ñu buntu yépp jox ñu caabi yépp bureau yépp mu génn jox ñu. yombalal ñu liggéey bi donc man nii daf may gën a jox envie sànq maa ngi ciy waxtaan ak samay collègues am na médecin yi ma naan non moom xaaral déwén donc mu leer na ma ne déwén lay ñëwaat encore nombre bi day triplé wu voire même mu voilà donc loolu moom ma bëri journée yi tey insha allah sax sañu a continuer na bokk aussi jàpp na ci tamit yaatal ci mhm. mais aussi di remercier samay cousin demoon déplacé wu indi ay médecin ak ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoom personnellement wala ñu si def seen xaalis ak tout mais itam di remercier famille docteur El Hadj Ousseynou Faye parce que euh, xeebulu ñu benn yoon journée bii nii jàpp nañ ci bu baax bu baax nag laa wax jàpp nañ ci bu baax ci ay appel ci moyen ci médicament et tout mais aussi nag bu ma fàttee remercier sama ministre monsieur pas Malick parce que moi, tamit jàpp na si journée bu baax jox ma xaalis bu bari dama ma nañ lekk nañ naan donc ma koy sant aussi diko ko gërëm jaay. correctement madame Ba pour mu mën def liggéey correctement la population dafa wara nek ci ginaaw ak ci kanamam. Mhm. nek ci côté gauche nek ci côté droite fu mu gestu gis len buñ ko defee rek madame Ba dina am résultat. donc encore une fois di lancer message di wax population bi ne nañ japp jappalé wuñ madame Ba mais sen bop lañu jappal nañ jàpp jàppale wuñ Malick seen bopp la ñuy jàppal nañ jàpp képp koo xam ne bàyyi nga sa kër bàyyi sa ville ñëw si village yi nangu faa nekk occupé ba poste de responsabilité rek population bi dafa war a nekk sa ginaaw ñu xàcceendoo dóorandoo. kàddu gu mujj gi d' abord di la gërëm yow ak sa équipe parce que aussi jóge ngeen fu sori ñëw pour walla euh, dooleel journée bi donc yow aussi amuñ sa fay dañ la si profité di la jaajëfal di jaajëfal aussi population bi parce que aussi boo wootee kenn ñëwul moo. c'est vrai xam-xam bi dina fi nekk gëm-gëm bi dina fi nekk mais day sooxe mais yàlla def na la ba ñu woote nañ terrain bi gars yi liggéeyoon nañ ko ba pare maanaam ba lancé woon ne message bi nit ñi ñëw nañ en masse di di profité aussi di leen gërëm ñoom ñëpp kenn ku si nekk di wax rek na nii la jàngoro moom mhm. doo toog ba mu yóbbu yow yaa koy yóbbu hôpital naka nga koy yóbboo nag c'est des actions comme ça suñu wootee nga am opportunité bi rek yaakaar naa du la dara defar nga saytu sa sa sa yaram